أعوذ بالله شمل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ñoo ko organisé fii ci centre polyvalent bi waa El Vision Média dina jox en direct incha allah rabbi ñu àndandoo dugg ci bii xool la moo xew ci bii ñu xool nabiyen lan lañuy def ci biir incha allah ay waxoon rek spécial ndonné bi nga xamante ne mooy am fii ci centre polyvalent bi di xale Ndiaga Sam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko organisé maa ngi ni dugg ci biir waaye itam dama jàkkaarle ki nga xamante ne ñoom moo waral euh, mbir mooy dawagum pour l'instant Omar salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. a baax. waaw soxna Sala maa ngi delloo ziar ñëpp di nuyu ñëpp macha allah di nuyu waa El Vision Média TV euh, seenu euh, ndigalu kilifa. El Hadj Lo ziar la ñoom ñëpp nag di kontaan ci teewaay macha allah. macha allah am na solo waaye Omar Samb dañoo gis tey ngeen organisé spécial ndaw spécial ndaw bi nga xamante ni yéen xale yi Ndiaga Samb ko organisé instant yi loo leen préparé gum ndax duggagoo. waaw instant bi yaa ngi gis nit ñi ñu ngi ñëw di def préparation pour dugg boo xoolee ci biir euh, première partie bi commencé na incha allah bi ndax heure bi ñu joxe woon daanaka jot na nit ñaa ngi ñëw man nag maa ngi nii di préparé soppe incha allah loo xam lu rëy la di wax rek ci kanam tuuti rek incha ñu dugg ci biir ma wane leen li ma préparé soppe incha allah. kon tey waaw incha allah dana neex dana xumb incha allah rek képp ku kontaan rek boo ñëwee di nga kontaan incha ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. incha moo ko tax a jóg ñun lépp lu ñuy def rek yonent bi moo koy tax a jóg te képp ku ñëw rek di nga xam ne incha allah rabbi fii yonent bi rek ak Seydina Cheikh bak mag ñu baax ñi moo ñu tax a jóg incha allah rabbi di ñaan nag euh, ñëpp rek ak tey toog déglu ndax soirée lañ wax soirée yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, baat bi sax dafay xaw a wolofe waaye spécial ndëwënal spécial boo xam ne dafay nekk tamit loo xam ne exceptionnel lay doon loo xam ni ñun rek ñoo koy def ku ko defaat si ñun nga koy gisee loolu lañ bëgg incha allah rabbi euh, amul càmbar càmbar amul dara diine dagalaa lay doon incha allahu rabbi incha allah. incha allah dégg ngeen wax nee na diine doon incha allah. fii centre polyvalent bi xalé yi Ndiaga Samb organisé spécial ndaw ne kon Omar ci kanam. wa inshallah ci kanam inshallah ok gis ngeen Omar Samb mi ngi non mom lañ doon waxtana ak sànq nga xamante ni lu ñu war a ci deuxième partie mais dañuy dugg xol la moo xew ci biir incha allah. Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ko tuuta fii ci centre polyvalent bi nga xamante ni moom la xale Ndiaga Samb organisé di spécial ndowaneel ma toog taxaw ak ki nga xamante ni mooy président d' organisation bi ma fas yéene waxtaan ak moom rek incha allah rabi li programme bi déroulé Sarr nuyu naa la Ousmane Sarr. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu di la ziar. rek eh, man yàlla dogal na maa jiite maa ji maa leen jiite ci lépp eh, organisation bi fason njàngin meek ku nekk ak comme ni nga ko gisee nii ki yor di ko jaay. ak ki façon jàngin bi ak yor heure bi parce que lépp ci heure lañ ko tënk parce que bëgguñ mu déborder xam nga loolu yëpp ci organisation bi la bokk eh, mu metti torop nag parce que nit ñi dañoo miinoon boo nee 21 heures ñu ñëw 23 heures waaye ñun bu ñu nee 21 heures 21 heures boobu même bu fa kenn nekkul dañuy commencé parce que tamit organisé nañ ko ba nga xam ne am na heure u tas heure bi nga xam ne ci lañ war a tas bu jotee rek incha allah dañ koy arrêté bu neexee dañ koy arrêté bu doyee dañ koy arrêté bu bon ñu ngi ko tënk nag fii ba une heure du dina dina mate incha allah incha allah ok kooku Ousmane Sarr nek nga xamante ni moo nekk moo yor moo nekk président organisation bi fii ci xale yi Ndiaga Samb waaw Omar Sarr la moo tax yéen ngeen choisir pour nekk xale yi Ndiaga Samb la moo tax loolu bu leen neexoon ngeen tuddee seen bopp beneen tur mais ngeen choisir nekk xale yi Ndiaga lu waral loolu loolu seq Ndiaga Samb waa xanaa mu nekk suñu mag rek yar ñu ñu waroon tuddee suñu bopp leneen waaye nekk xale yi Ndiaga Samb parce que fi mu ñu jaarale il faut ñu nekk ay xaleem buñ ko nangoo buñ ko nanguwul heureusement bañ nangu ko mënuñu mënu nañu tudd xale yi ñeneen waaye ñun Ndiaga Samb lañ choisir parce que moo nekk suñu modèle ñu teg ko suñu kanam di ko roy kon ñun xale Ndiaga Samb rek lañ mën a tudd tur bi nag yàgg na ndax depuis 2010 ba léegi xale Ndiaga Samb lañ tudd parce que Ndiaga Samb am na groupe am tuddee ko groupe sopp Serigne Moustapha bu Serigne Abdou ñun ñu choisir suñu groupe ko parce que yar wan yoon wi kon ñun keneen turu keneen lu turu xale Ndiaga Samb indi turu xale Ndiaga Samb bi est-ce que ba ngeen koy def premier euh, épisode bi ngeen ba ngeen koy def est-ce que dem ngeen ci kilifa diine laaj leen seen organisé seen seen euh, seen seen xalaat. bon wax deug yalla demuñ ci ben kilifa diine expliquer ko. waaye ñi nga xam ñoy suñu kilifa. ci gox bi dem nañ ci ñom waxtaan ak ñom ne leen dañoo bëggoon def organisation mais tuddee ko soirée Yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu kilifa fi ci koñ bi ñom buñu valider rek kilifa yi ci kaw dañuy valider parce que kilifa yi ci kaw ñom lañu jox ndigal. pour ñuy valider li nekk fii te ñooñu yëpp yàlla dogal na dem nañ ci ñoom ba waxtaan ak ñoom ku ci mel ni mën naa kenn nga xam ne suñu kilifa la ci koñ bi muy Pape Oustaz Pape Makhtar Sylla nga xam ne moom ñi ñuy ñi ñuy encouragé ba ci billet yi sax bi ñu ko waxee ne ko billet 2000 la ñu def dane bu ngeen ma ko yëgaloon junni lañ koy def فجزل إله فتن به sànq rek ci bunt bi spécial doole bi nga xamante moom la xale yi Ndiaga Samb organisé fii ci centre Poulébala bi ma fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ne mooy di waykat si takkat yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bokk suñu waa kër Maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Moustapha ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar. dama lay indi fii tey ci programme ah xanaa kontaan rek sunu xol sedd ndax lii. yombut ndax am na ñoo xam ne ñun neneen lañ koy defee neneen waaye bu yàlla dogalee ñu ko def ci diine ah réew ci ñun lool wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool wax dëgg yàlla. ñun tàkk tàkk du yonent bi sallallahu ci waa kër Cheikh Ahmadou Bamba ci nga ñëw lan moo lan xanaa kontaan rek ndax dañoo romb ñëpp. xool sama jëmm ji boole ma ci parrain waaye nag dara warulu ko lu dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax damay faral di wax ni yonent bi wa sallam mooy garab tarixa yëpp ay bànqaas lan bànqaas yëpp ci garab gi rek lañ nekk te garab gi mooy yonent bi wa sallam lii daal ñu ngi ko yàgg a fekke ay at yu bëree bëree bëri هدي ذا دلال خائما يا instant moom lay organisé fii ci centre polyvalent waaye tam ñu nekkaat ak kenn ci tàggatu salaatu wa sang bi ziar nañ la. delloo baax. tur bi naka la. Pape Sall Pape moom la xale Ndiaga Samb organisé di spécial ndaw ne. waaw euh, Seydina Omar day sama soppe euh, di suñu rakk Ndiaga Samb nekk suñu mag. Euh, foog ñëw ci bis bi ndax bis suñu bis la ndax dañuy tàgg yoon sallallahu alayhi wa sallam moom. te Omar Samb moom lu mu xawla rek ñun dañ teew incha allah. collectif bi bu rafet bi nga xam ne moom la xale Ndiaga Samb def li xam ne yombul instant ñu nekk nii. waaw xam nga lu mel ni yombul ndax euh, entrée nga fay ñu bëri bi ñu ko def mais dafa am solo euh, nit ñi di fay yonent bi dafa leen war a jaral loolu ndax 2000 euh, francs barewul ndax ñu bëri ñu ngi def feneen 5000 wala 10 000 yoo xam ne benn njariñ li ma li ma ëpp solo ndeysaan waaw. what down we are in rek fi ci santé Poulé Balla nga xam spécial ndawone la ma toog ak kenn ci marin yi mu nek soxna su bari ngi bàyyi présenté soxna ci ziar nañ la rek kañ tur bi naka la asubari la tuddu asubari bari ñu ngi lay ziaru baxa ba no baax gisee spécial ndawone bi nga xamante mom la xalé ñaga sam organiser ah dama ko gisee initiation bu rafet ma ko lu rafet la wax dëgg fa yalla oma samba dafa nek ci koñ bi nekk jàngkat nek jeune bëgg nit ñi yëg nit ñi di def li day rafet ci bir koñ parce que mënon na fi nek tamit di def leneen mun duñ ko mënal dara te tamit su boobaa nit ñi dañ ciy ànd ak moom comme dafa jug nag jugal yonent bi euh, nekk ci cadre yàlla bi defuñu lu dul rafetlu ko mu doon la affaire bu rafet daal bu ñu rafetlu ñëpp bëgg ko tamit moom mu nekk nit ku baax ku tabe ku yëg xam nga yëg moo waral lii ay xale yu ndaw euh, di def lii mag ñi déplacé wu ñëw. bu nekkul woon xale bu am yar am teggin bu ko defee mag ñi duñ ko faale wala su ci leneen tamit bu koy def nit ñi duñ ko fekk si amaana ay ndaw kese la ciy gis tam ndaw ñi tam sax léegi doxatuñ ci ñàkk fay daal ju mbirum yàlla ak yonente bi ñu koy ñaanal daal yàlla lafal ko cat yàlla saxal ko ci lii nii mu dem ba koy defee grand théâtre parce que ñun am nañ yéene boobu ci ñoom te xam naa ne borom baax la yàlla mën na kaa yeggale foofu te gëm na li muy def tamit te xëcc na ci ndaw yëpp tamit ñu fekk ko ci loolu. way ñëpp ay gërëm yàlla ñu jox ay nit ñu baax te nit ñu baax moo gën a taax moo gën a taax ndax jasine melul ni waax ndax jasine melul ni waax yàlla nu jox ay nit ñu baax yàlla nu jox ay nit ñu baax te nit ñu baax ñoo gën a taax ndax jasineer melul ni waa bul déglu waay kiy wër naax yàlla ñu jox ay nit ñu baax te nit ñu baax ñoo gën a taax ndax jasine mayul ni waax bul leen di waay ma la sam-sam waral ba jàmm gën te ana waa sam-sam def leen Samsam model bagyan magel Samsam model ben ag fas Bun afia ba med fas Yembal sika bagyan magel Caroy pikin Ñi ñoo fi gën yubasiru qawmahu Namo Bija وإلا منام هنا فلسق الفؤاد لترفع حراق سبه ba tey kenn dafa ko àddina naan di ngeen dee kaay ngeen dem fu ngeen jëm seen loxo yi loxo yi maam Bamba bàyyi sëriñ Saliou ay loxo yi nga daw باي باي سري سالم اي وقت جدي هو يلا بالمصطفى سيدي الله وبالخليل ابراهيم يلا مام باي باي سالم اي وقت جدي مام باي باي سري سالم اي وقت جدي هو يلا بالمصطفى سيدي الله وبالخليل ابراهيم يلا مام باي باي سري سالم اي وقت جدي مام باي باي سري سالم اي وقت جدي مام باي باي سري سالم اي وقت جدي مام باي في لري غاني بتاي dama àddinaa naa digal ee gaa ngi doon fu ngeen jëm na maam Maodo daal gaalu texe gi ku ci dugal du sa maam Maodo daal gaalu texe gi ku ci dugal du sa maam Maodo daal gaalu texe gi ku ci dugal du de moom xat ja anaa mool ko najaat mool xat dafa anaa radaa seen maam Maodo daal gaalu texe gi ku ci dugal du de moom xat ja anaa mool ko najaat mool xat dafa anaa radaa تبدي كنت تقول لك من تمام وجل بحر بحر الذنب يا صغتي وإنني ربي خفت الغرق يا الله وما سفينة ترجى غير رحمتك حسن عميمتي كل الخلق يا الله قد جاءنا ملك النجاة وقد نفى عنا ردا سمما من أرجال تبدي كنت تقول لك سمما من أرجال تبدي كنت تقول لك فزيدي وقفزي مدها saayas faali kii biir jàngi gis ngeen gis ngeen xale Njaga sam tay liñ def tay ci centre polyvalent bi mu nek spécial ndawnel bo xamanteni ne xale Njaga Samb neexal nañ fi bam neex da sam sap sàpp bi alayhi salatu wassalam waye tam ñu nek ñu waxaat ak ki nga xamanteni moy Omar sambre pour tëj suñu programme bi lan la wax lan lay remercier parrain ak marraine Omar sam no gisee programme bi waaw xana sant yàlla rek yàlla mi nga xamni mom lañ doon ñaan don don ko ñaan commencé ko ci alhamdullah ci bismillahir rahmanir rahim jeexal ko ci alhamdullah rabbil alamin te yalla may nañu wax deug yalla ndax euh, euh, commencé di ko mettez-vous woon lol lol lol waye bi euh, alamin ndax na nit ñi nañ ambiance bi amna li ñuy soxla ñun bégal suñuy def te nañ même bu dee kenn la bég na ñun suñu bop nañ bu baax même bu soppé yi ñun nañ ndax loolu dafa neex te macha allah ku gis saal bi suuf euh, ni mu meloon euh, xam ni lépp lépp lépp lépp macha allah jaar na yoon damay sant ñëpp nag sant ñëpp sama soppe yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni euh, wax dëgg yàlla bég naa ci yéen rawat na waa Sam Sam waa Fass mbaaw waa Jàmm Gën waa Caaroy Sikaab Mbaaw yëmbal ñëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ maa ngi sant ñëpp nag sant ñëpp ziyaara ñëpp euh, rawat nag ki nga xam ne moom mooy suñu mag euh, suñu xarit suñu doomu ndey xaaj njaga sàmm ndax ñëw na toog Euh, ànd ak ñun ci bis bi ñuy gis du ko gis loolu dafa am lu mu def si ñun ndax moom moo ñu jàngal way te ki la jàngal way bu toogee ngay ngay tari ci kanamam euh, macha allah mu kontaan lool dafa neex kon kontaan nañ bu baax a baax di ñaan yàlla di gërëm ñëpp nag waaye yëmbal ñëw nañ seen artiste sama xarit macha allah jóge ba yëmbal bàyyi léppam ñëw moom tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax ziar ñëpp gërëm xale njaga sàmb ñi ma doon àndal staff beeg ñëpp macha allah ndax liggéey bi du Omar Samb du Omar Samb kase staff xale njaga sàmb la da liggéey lépp lépp jaay doon kon soxna Sala kontaan nañ bu kontaan jam wax dëgg yàlla kontaan nañu bu baax a baax. parrain yi ak marraine yi loo leen wax. waaw moom aw seen fay wax dëgg yàlla ndax nga am bis parrain ne ko nit wala nga marraine ne ko nit mu ñëw teew indi nit ñoo xam ni kenn xamul fu ñu jugee ba saal bi xaj fi wax dëgg yàlla damay gërëm ñëpp ñëpp ñëpp laay gërëm parce que bëgguma di lim di fàtte wala may tëb damay gërëm parrain yi marraine yëpp waa daayira yi ñëpp maa ngi gërëm ñëpp mu tax abina muxtafina euh, Euh, istalaa wala islaax ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di wax rek kontaan naa bu baax wax dëgg yàlla kontaan naa. macha allah gis nga a Samb mi ngi noonu nag programme bi jeex na fii ci centre polyvalent bi spécial ndaw na bi nga xamante ni moom la ñu xale yi Ndiaga Samb doon dëktal waaye Ndiaga a Samb lay wax waa El Vision Médias waaw gërëm moom man maa ngi ci biir biir di wax gaa yi daw leen gaaw ngeen abonné ci ndax euh, lii moom El Vision Médias rek nga koy amee. El Vision Médias du yomb de amee moom rek nga koy amee. jërëjëf